une chose dis nga Boy, waxoon famille, c'est des contrats. mais attends. la vie ne m'enchante plus. Oui, non mais suma la vie ne t'enchante plus mais c'est quoi. mais allez accouche waxal nga bëgg qu'est-ce qui se passe ton épouse lu hein Hein Et bu doon moom rek sax mais j'ai fait tellement de choses pour la fille là ma bëgg ko takk sama sœur bañ ma xar sama tànku tubay takk ko moom ak yaayam dafa dem seeti sëriñ moom ak yaayam liggéey ma pour ma dee pour que je meure ma dee mu donn sama alal liggéey ma ma dee non non non attends on se calme on se calme on se calme on se calme Mans, tu te calmes C'est nga tu sais nga femmes yi noonu la ñu mel kenn wax naa la Somme hôtel non mais attends. mais mais mais jusqu'à ce que pour ma non mais attends on se calme calme-toi Les dingues nga ma bëgg non j'ai envie de non non on conseille que je donne La Khalebi, Pas takkate parce que dans les xonjom après da perdre perte liggéey Les nains ont un mariage c'est un contrat. quand nee naa la gerte non non non non tais-toi et tu m'écoutes. Quel genre quel Tu yaa hôtel. xam non non la non dis-moi dis-moi attends attends tu es mon ami. mais dis-moi la j'ai envie de marcher un peu. mais parle-moi de de ta nouvelle. Euh, connaissance la conquête heureusement qu'elle est là Bibiche. Bibiche alors. mais Bibiche non mais heureusement qu'elle est là. elle hein? est arrivée à temps sinon. du dox. mais pas on un train pas en cacher ou autre et ça passe. non mais tu veux marcher un peu j'ai envie. non tu ne dois pas marcher. na la bàyyi ni dans non, attends, non, non, non, non, on se calme, on se calme, ça va. Où, où est-ce ouais. qu'il est Non, c'est bon. Ah, non, bon. non, non, non, non, non, non, non, on se calme, non, Malé Yobou. Non, c'est bon. Frère. Non, non, non, on se calme. On naa la ko nee naa la gëli da ngeen ni moytu je suma kii ah man fi mu nekk attends attends attends attends non non attends où est-ce qu'il est Jules je te passe une voiture ok parce que de conduire tey ah Jules où est-ce qu'il est Jules essayer de. Oui, c'est ça. Madame Job, s'il te plaît. waaw ma ne yow ataaya sa ataaya. gannaaw ki ma seet si moom ab sedd ko jàpp. kii sedd de la ragal. mënul mënul mënul mënul mënul mënul mënul mënul mënul mënul suur del tibb di def rek sama cuuraay ni moom duñ ko jeexal saa yooyu yow tibb di def maa ngi may ba toogee ba léegi de man ñetti ku dëgg yi bu rek du sotti bu ndànk lay wala lay waaw def ba mu ba mu tere bi mu jeex nag mu jeex dama ko soxla te xam nga jamono ji ma ñun ko ah ma rawatina man nag li mbëtt bëgg la bar bëgg <laughs> yaay defar ba mu xeeñ jox ma sama wàll waa ma ni gi nga xam kan, ne da nga ya, ci biti ma romb ko nga sebet daal di def ba mu tere bien lu muy xaar lay la du pour yow nga du yow

sais pas, chérie, je sais pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, je te jure, ça va pas du tout entre moi et moi. Ça me saoule, j'en peux plus. démb par exemple bu ma la waxee lu ma def danga naan lu ko fi jar pour pour un oui ou pour un non maas daf muy yuuxu oui, c'est je viens pour l'embrasser tu vois di ko gàttandoo mu fas kanamam des trucs comme ça alors je lui demande ce qu'il y a il me dit euh, de toute façon man mënuma régler ay problème bu ma ko yokk lu problème mënuma régler ay problème je te jure et le plus difficile dans tout ça le plus dur moo man je ne comprends pas jusqu'à présent lan la. mais fois ko dara yow.

muy fuuf fuuf damay dégg xam nga portable. ah oui portable xam nga nga koy sànni. kii ku mu doon allo. allo Ndeye la. oui. kooku la. maa man la Sali. ah Sali noo def. ça va bu ndaw rek waaw. ana sama góor. ñu ngi fa ñu ngi fa xëy na daal en fait waaw. waaw man sax. affaire maas daal moo taxoon ma demee ko. ah. maas daal wax fa dëgg ne yàlla ndee la man fu ma toll ne xàmmeetuma maas daal maas dafa changé. nga ne. maas maak moom suba ku ngoon guddeeg bëccëg si xuloo lañ dëkk joxeetu sax dépense pour te dire yoonam nekkatul ci dund kër gi. Ah. yow nag de mosoo wax lu naqare nii te gis nga démb bu ñu seetsee noonu ba dem dafa gedd si saa bi sax la mujj fanaan moo garaawul amul benn problème dina arrangé yëpp soxlawul sax kii yooyu dina arrangé yëpp jaru xalaat wallaay loolu de fon la fon bu pata pata pour garé damay ragal ne sax maas waaw xëy dafa nga ne ay comme safara ak caas. da na bal ba takk na. ah oh, ba teel ndaw. ñaw bien fait pour elle. yow daal nu ñuy def dellu ci sëriñ Matar. waaw mu ndax affaire bi saf na ba bare kat. loolu hmm? yéene ko mu tas sama càmmañ kii aw fii kii aw fii. ku ne lakkal na ma sonal na ma wittal ba yàlla takk te am ko lii fi rek la am. yow nak yaay kan xana du sali mel ni mi ma xam di jabaru maas di sa càmmi sali nga xam ne fu sey nexe ma koy sëy lan la jo ndela bett na lan la ndela ak ni ma ak ni ma ko bëggee ak ni ma ko ndela ak ni ma ndela samay ak ndumbe ak li ma def si ñoom tout ce que j'ai pour elle man may dof man may dof yow Sali mi nga xam ne fu teraanga baaxee xeebu ko bañu ko fu bijou chéré mu gàddu ndugg mi ak togg beeg ñoom raxasit ak tuuri ñeex yére valeur yi kenn waxatu ko te looy wut ci jigéen mi ngi ci Salimata maas mii de bu ngeen lëñjantee lëj ba mu dem ci sëy bii dootul am jabar ju mel na Salimata xaw ma nag yow ban xarit nga doon bëgg waaye man. bu may ànd ak ma ne. du ma noyyi ma tontu kii ma noyyi ci lan. yow xoolal sëf gëlëm. sëf jaamaa ko gën ba ci lan. suñu càmmiñ ji lañ am. xoolal bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg. waa ba ci lan ma maa la wax lii. waaw ba xam yow yaay sëy sëy sëy sëy càmmiñ. ma ne dimbale ñu. waaw bu yaboo xam nga lan laa bu yaboo. doo ñëw sama kër gi di ma xaali soo amee looy wax demal ba ci sa kër. dama fi dul toog sax. amoo dara loo fiy wax. yéen ñëw pour waxtaan waxtaanal. donc yaa ko ëppal nga nag ëppal nga ëppal nga ëppal nga yaa fi di ko sa kii moo waane bay waaxoog yaa fi dikkoon waane bay bëgg nekk ndumbe Ndumbé nekk ñoom ñoo nekk derrière tous mes problèmes Mac Mass mos kala mom bu tegloo boobu melni ni étagère musiba ah way war na la def andumbe ah, nak mom ko bu ëmb kala mom bu dënd boobu muy mel ni koñe kañ ba xam war na la def ni ak yow li ngi leen defaral lepp ah ay man yéen a njëkk yi ñu jaaxal nañu. waaye ñoom dañuy tam dinañ am njëkk.

xali mi ni ma ko jéppee day tas sax ni ma ko jéppee day tas xam nga nu ñuy def dem ci sëñ mataar noonu la ñuy def lu xew jàmm mag salaama xew da nga am looy lijjanti dama nga lijjanti waane ak sob waane yéen ñii la ah. Ah. xam mbirum sali la encore sali hmm. encore sali toujours sali waaye fajum ki kër la yow ana seeni doom du ngeen gérer ni sali toog lu ñu lay ataayal su ma sañoon de sa jëkkër nga koy defaral i waaw kii ngi maam ne yàlla tàgg woon du ma nekk seen rakk. mat ma leen waaye yéen yéen lan. waaye kii rakkaat wul yow mu mel ni ma laal kii dara yàq ma may door bàyyi ba muy eh, eh, may rey muy rey rey damay may rey. màggat du mu mbéy mi mag. imbécile. ñëw door la ba nga bëgg a dee. dara ngaa bi ñaaw na làmmiñ de bu la dara naqari waxuma dara mu mel ni euh, sooke bu jigéen am na

neex la neex la nga ànd ak ma ba mu neex la naqadi yow nga foye ma neex la neex la nga may yaakaar